perlu kàddu yi ni mu ko àndee rek mm. am na solo te matale na mm-hmm. leeral na banqaas yu baree bare bari ci wàllu tooñ mm-hmm. waaye xëy na ñun niñ ko déggee rek tooñ mm-hmm. jikko la boo xam ne yàlla nanguwu ko yonente bi sallallahu alayhi wa nanguwu ko jikko la boo xam ne ngor nanguwu ko nanguwu ko <laughs> dignité nanguwu ko mhm. personnalité itam nanguwu mhm. kon diine daf koy dàq mhm. daf koy rejeté kon tooñ baaxul tooñ du alalu gor ndax gor mënu ko du moomeelam tooñ it du alalu nit ku yiw ah, ndax nit ku yiw du tooñ mënu ko mënu ko jikko boo xam ni li yonent bi sallallahu doon wax ne loo bëggul nit def la ko bul ko def sa morom te nit lu mu jubadi jubadi bëggul ku ko tooñ comme que bëggul ku la tooñ yow fexeel ba bul tooñ dëgg parce que fa kama tadiinu tudaanu albirru laa yabla wa zanbu laa yunsa wa dayaanu laa yamut fakun kama shiita fa kama tadiinu tudaanu olof lépp ko ne ku ñu fay sa bor nga mer mhm. la nga leble baaxul kon ku bëgg ñu lebal la lu baax mhm. wala ñu fay la lu baax dangay leb la lu baax te tooñ bokkul ci jikko yu yiw yi mhm. jikko la boo xam ne gaaw na ci màbbu penc lool ndax tooñ fu mu am rek mooy dëgg réer na tooñ fu mu am mooy njubadi am na tooñ fu mu am mooy jàdd am na tooñ fu mu amit mooy jalgati am na mhm. te yàlla nee na taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wala odwaan mhm. te ismi wala odwaan nañu ko sëriñ bi firile mooy caaxaan ak jalgati bu amee rek mhm. tooñ am na bu amee rek tooñ am na te gis nga yàlla mi bind nit dafa wëlbatiku fonk nit walbatiku bëgg nit mhm. walbatiku màggal nit teral ko mhm. teral <laughs> mënul supporter tooñ googu mënu ko parce que tooñ dañuy wax ne am na ñetti façon am na yu ci imaam leeral léegi jaam bi dina tooñ yàlla boroomam yàlla mi ko bind moom ko sañ ci moom lépp mhm. ne ko sa xol man dagg maa ci yey jox ma ko nga jël ko teg fa keneen mhm. baa nga xajal fa keneen mhm. li mu nekk shirkun azim mhm. moo tax bu fa jógee loo fa bati sotti fa te dootul fees kooku bokkaale la yàgg yàlla la mu am beneen tooñ mooy bi jaam bi di tooñ boppam jaam bi tooñ boppam moom ci boppam waaw yàlla mi mi la bind sonn ci yow def effort bu toll noonu pour nga jag jox la islaam jox la yonente bi sallallahu alayhi wa jox la alquranul karim tracel la yoon bi nga war a jaar nga wëlbatiku suufeel sa bopp ci jikko joo xam ne jekkul sax ci mala waxuma la ak nit ki ñaari noppam yàlla wëlbatiku gis la xam ne effort bi mu daj ci yow mérité mu jéppi la kooku ku tooñ yaa tooñ sa bopp parce que yàlla moom wàcc na lam la waroon defal yëpp defal na la ko léegi nag yow yaa tooñ sa bopp ñetteelu tooñ bi nag mooy tooñ bi jaam bi di tooñ moroomu jaamam xam nga yàlla mi ñu bind sañ ci ñun lépp lu mu wax inna laa yazlimu nnaasa shay'an yàlla nee na du ma tooñ nit waaye nag walaakinna naasa anfusahum yazlimuun mu nekk erreur nag bu rëy a rëy si ñun te gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy yónni Muaad ibnu Jabal ca Yemen waaw pour mu gouverner dafa am yu mu ko doon dénk te yam ko dénk bokk na ci boo demee na nga moytu ñaanu ku ñu tooñ wallaay mu ne ko ndaxti da nga dul xam kiiraay bi dox digganteem ak yàlla mm-hmm. mu ne ko te bi ci gën a doy waar mooy doo xam kañ la yàlla di réagir dëgg la mais du ko delloo mm-hmm. Mm-hmm. kon jar na moytu bu baax a baax jar na moytu bu baax a baax kon tooñ tooñ baaxul imaam leeral na ko léegi yonent bi firil ñu ko ci firi bu gàtt ne tooñ daal mooy lëndëm mhm. waaw te lëndëm du jariñ nit mhm. daf koy sànq koy sànq rek te bu ko sànkee safara la ko jëmee mhm. <laughs> safara la ko jëmee waaw yow lu fa nit di soxla leer kon ku fa dem yóbbu lëndëm waaw compliqué na si yow kon tooñ baaxul lu nit war a moytu la waaye tamit lu gor war moytu la waaye tamit nit ku jóg pour defar pénc lu war a moytu la. macha allah kon bu ko defee rek. Mm. Ah, jërëjëf ñu ubbee foofu rek incha mm-hmm. allah. am na solo mm-hmm. defe naa li oustaz ubbee ak li imaam ubbee. Mm-hmm. yéen kenn ku nekk. am nga ci loo mën a wax. yéen ñi ñuy déglu. di topp émission yeete bi fii ci Mourchid TV. la chaîne de valeurs. damay wax toujours rek